lii njëkk ibbi nag moom mooy kulliyat dira kulliyat dirasaatu islamiyya mooy faculté yi jàngale wàllu euh, njàngaleem islam ak adab moom la ñuy njëkk a ibbi. Mm-hmm. bu loolu jàllee nag yeneen kulliyaat yi ñëw ndax. kulliyaat yi bëree bëri waaye ci kanam macha allah yi ubbi bari na mais ñaar yi lépp nag dañ koy sant yàlla ginnaaw si mu taxa mm-hmm. ndax mën na yuskur naas la yuskur laa mm-hmm. te sama sant gi nga xamante ni sax daanaka mu ne wax ni euh, ñun suñuy njaboot. ñooy borom ñooy sens ñooy sens ñoo am sens sens bi mm. waaw dañuy dañuy dañuy dañuy ñaan suñ borom subhanahu wa defal ñu tawfeex rek ak suñu taxaam yi ñu fekk ko jàmm waaye su boobaa de dana changé dundinu doomu aadama yi te itam dana gën a xamaat itam tam murit nekk bu ñu nekk ay nitu xam-xam te itam yabeel am suñu digganteeg ñenn ñi nga xamante ne ñoo nekk ci côté bi. Mm. du sànni xeer. daanaka ñi ciy sànnate xeex sax day am ñoo xamante ne xam-xam ñàkk xam-xam moo ci ñàkk yóbbu moo leen ci yóbbu ku ci tënku ca ci xam-xam la nga xam doo ko def mm-hmm. ay salafi sek ay wahabi euh, du ma ne salafi lu bon la du ma ne wahabi lu bon ndax man mën haj boobu dama kaa jàng ba pekk waaye si jëm boppam salafi bi dàggasanteeg mutasawif bi xanaa gisul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm, dafar na ñoo xamante ne kenn daaw ci dàggasante kon léegi ñoom ñaari ñooñu noonu xanaa tënkuwuñ ci njàng njàngaleem yonent bi ba ba ñuy dàggasante mi nga xamante ne mooy suñu sëriñ dañoo wax ni falaatu adu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah mm-hmm. koo ko ne ñii génne ci làmmiñam laa ilaha illallah bu leen ko mm-hmm. noonu moo tax dañoo gis ni daal université bi bis bu demee ba noppi dina mm-hmm. génnee ab jeunesse boo xamante ni macha allah complet lay doon complet lay ah, doon sëñ Muntaxa am na ku bu ci buumu jokkoo gi salaamaaleykum salaamaaleykum ligne bi de tey daa xaw a sant gi ñu ngi koy jégalu bu baax a baax ndax xam-xam moo demee noonu. Mm. ni ñuy duggee moo tax ligne bi xaw a xat mais ñu ngi koy jégalu buñ sañoon saa su ne wax dëgg yàlla ngeen di dugg di ko laaj. ndax lépp lu ko nit laaj rek ci kàttanu yàlla yàlla may na ko ci xam-xam mu ca tontoo bu ànd ak yar ak tegginu dëkk bi kon di ko ñaanal mbàkki bàlla guddal fanam wéru di cëram sëñ Xaasim li nga wax yëpp da koy bind ay téere mm. yaa nga ca mm. ñu bëgg xam téere bi kañ nga koy génne mm. ak it képp koo xam ne nag bëgg na la jege naka lay def ba jege la ndax mm. lii ngay def nii laaj na ni ñi jege la xam naa de liñ bindagul moom ci ay taalifam jot naa takku moom bu dee ci loxatul arabiya tamit am na luñ ci bind am na luñ bindoon loo xam ni muy nekk ci école Sëriñ Abdou Lahad Bousso laa ko bindoon jëmale ko ci fiqhul axlaaq mooy téere boobu wàllu jikko laa jëmale. génn na wala génnagul ñaar génnagul daanaka yi ma def xam naa ne daal. Hmm. amagu ci benn boo xamante ne génn ko waaye incha allah am nañ ci yéene mu gën a tasaaroo. Hmm. waaye yëpp daanaka bëri na ci yoo xamante ne noppi na. Hmm. ci arab ak euh, na ci yoo xamante ni yóbbu naa ko ci bibliothèque bi nga xamante mooy bibliothèque Sëñ Basiir bi. boo demee Sëñ. am na ko nit yi gi salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi ñoo ngi lay ziare yokkal sa kàddu tuuti sa baal ñu. Ah, ngi leen bu baax ñu ngi ziare bu baax. Eh, maa ngi déglu waxtaan bi. dëgg la. Eh, li ma gën a yitteel ci waxtaan wi nag mooy joxan boobu mu joxan université. dëgg la. te muy allo. waaw ñu lay déglu loolu la ñuy déglu sëñ bi. allo ñu lay déglu. allo. ñu ngi dégg bu baax. loolu nee na li ko gën a neex mooy ci université bi nga wax macha allah macha allah complexe sax la ñuy wax complexe complexe ndax dafa boole lu bëri. yemul ci cité. Mhm. ñu bëri xamee wuñ ko noonu waaye dafa yemul ci cité bi ndax Planetarium sa jëm boppam sax dañuy wax ni Sénégal ba mu daj ginnaaw bi nekk ci eh, Pout. Mhm. Diamniadio fii rek la amaat ci fii rek la nar a amaat ci Touba. Mhm. te te Afrique nag moom Côte d'Ivoire kese la ci am. nga xam ne ñun moom. incha allah moom Sëñ Tuubaa li muy ñaan dañuy wax ni xanaa kay lépp nangu na waaye waxtu ne ak la war a si rek waaw mel ni sëñ Mountakha daal sas nañu. Hmm. Oh, sas ñun ñëpp góorgóorlu na ki njaboot gi jàngloo leen. jàngloo leen waaw ah, leen jàngloo njaboot gi nag ba ëllëg si biir bu université bi dañuy toog ba keneen balaa ñëw ñun ñu ne fa. Hmm. ndax lii sëñ Mountakha def kat ñun buñ fa dem buñ déemut a jàngeet ñeneen fi ñëw jàng si. Hmm. ndax njëriñ la boo xam ne day jëriñ nit ki àdduna jëriñ nit ki alaaxira jëriñ àdduna sépp nag. te kon sëriñ Mountakha daal ñun duñ koy ñaanal. gudd fan waaye di sant Cheikh Abdoulaye Mbacke ba ca vision bu rëy ba ndax Cheikh Abdoulaye yàlla na yàlla yokki leeram taas ñu ci barkeem mm. <clears throat> ah, Cheikh Abdoulaye vision bu rëy ba moo tax li mm. université bi mm. boobu ay at la boobu ay tout tànk lan waaw ah, boo ba nëgën si ñi ngi doog a xam ne université bi dëgg-dëgg li taxoon Cheikh Abdoulaye vision bi def ko vision ba baax ndax sëñ Mountakha dañ ko préparé sànq ñu ngi koy waxtaane nga ne sëñ Mountakha kon préparé la kon nag préparé nañ ko ban jot ci ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam Mbacke li mu sëmm mën koy yeggale mboolem nag rakkam yi ngi ko àndal ak seex yi nga xam ne ñoo doon ànd ak maam ju baax ji ak taalibe yëpp. Mm. yàlla may ñu kat am na ko ne ci bu mu jokkoo gi salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si def. nuyu la ba la jëwriñ. delloo bu baax. sant bu baax bisimilah yaa ngi ci Waarwi TV. ba yaa ngi ci jàmm bu baax. ñi sant alhamdulilah. ñu ngi déglu waxtaan bu baax am na solo de. Mm-hmm. di ñaan sëñ bi mu yàgg fi loolu te wér rek. amiin amiin leen ñaanal bu baax ci taxawaay bi. amiin. ndax sëñ moom ñuy sañ ci dëkk bi loolu dong la bëggoon. Mm-hmm. Euh, xam-xam. Mm-hmm. te sëñ ma taxawaay moom ci la nekk. di mm-hmm. ko gën a ñax ci la bokk muy euh, wàllu xam-xam kon nag war nañ góor góorgóorlu bu baax fexe sëñ njaboot yi. ñu xool fañ leen di dugal bu baax. ndax stade yi ku ne xam na jamono bi fi mu ndax euh, gis nga tubaab yi liñ bëgg a sëkke nit ñi dugal yoo xam ne kenn xamu mm-hmm. kon war nañoo góorgóorlu bu baax dugg ci système bi nga xam ne moom lañ bëgg mm-hmm. euh, su ko defee li mu bëggoon ci ñun ñu am ko mm-hmm. maa ngi leen sant bu baax daal li moom kontaan naa ci ñu ngi jaajëfal bu baax a baax ah baax na jërëjëf waay. jërëjëf jëriñ di la ñaanal nit yàlla na fi yàlla yàggal te kàttan na la nga ñuy déglu. Mm. say xaasim xaasim waaw. Mm-hmm. maa ngi sant suñu xaasim moom bu baax. macha allah nag li muy leeral noonu am na solo. macha allah ci mm-hmm, mm-hmm. complexe bi ndax. suñ mm. euh, euh, toll nii li ñu war moom mooy fexe njaboot gi jàng. balaa bari. Mm. macha ko ñu ñu ñu mën a ndax Sénégal damaa jàpp ne sens dëgg la li euh, ko mën a soppi ci Touba ci la bokk ndax complexe bi dafa war a am fépp. sëñ bi loolu mooy yéeneem mm-hmm. kon nag yàlla na leen suñ borom jaajëfal it ci baax gi ak sa crédit bi nga yëkkati di la woote suñu xaasi mu mel ni ñëpp am ci yow cofeel ligne bi tey moo am saturé rek waaye message yi may jot yëpp sama téléphone mënu mu ko liir macha allah ci cofeel ak ni ko leeral léegi bu ma bëggoon tey jii yéegi suñu xaasim mm-hmm. ndax lii nga wax ni buñ fi jógee dina am ñoo xam ne danañ woo laaj ñu hmm. fan la ñuy jaar ba mën a jege sëñ Xaasim ba lii nga xam ne yàlla dénk na ko mën ñu ko partagé ñun hmm. ah, man nag euh, xam naa ni guy ziar rek hmm. nekk ci mbal moom ku ci bëri mu nga ma faa fekk euh, am na mawqiyan tamit boo xamante ni am naa ko ci Google am na ko ne ci bu mu jokkoo gi salaamaaleykum maa ngi sant bu baax sëñ bi. ñu ziar bu baax a baax. noo tudd ak foo ñuy wooye. maa ngi tudd Dame bi wote Touba. sëñ Dame bisimilah yaa ngi ci Waarwi TV. waaw fii fii mooy télé Touba Média wala. Waarwi TV. Ah, TV. Mhm. maa ngi sopp seen eh, di rafetlu rek si seen liggéey. Mhm. si barke sëñ Touba. amiin amiin. alhamdulilah. jërëjëf. waaw jërëjëf tey àll xam-xam la ñuy waxtaanee moo tax. Mhm. di ko jaajëfal box si daam moom di ziare waa Touba gépp yéen a ngi ci biir waar wi TV euh, xam-xam moom du ñàgg caaga ne sëñ xaasim dana amaat ak moom ci yeneen jotaay bii de jotaay bu njëkk rek mu yombala ñu ko may ñu ko waaye yeneen jotaay incha allah danañ ko seq waa ku la fekk mbal incha allah. waaw mën naa jàppandi. Mhm. Euh, mawqi bi nga xam ne moom la am ci Google tamit. Mhm. da ci dugal ay njàngaleem sëñ bi yu bëree bëri xam naa incha képp koo xamante ne yor na sama numéro rek. Mm-hmm. mën naa fexe ba defal la ci ay kii njàngale yoo xamante ni incha allah. Mm-hmm. boo jotee dina la dañ ci am ak yaatu. bu mm-hmm. soobee yàlla. ok léegi nag ban dénkaane nga ñuy dénk. Ah, jamono ji yàqu na mbàkke. doon wax rek ne. Uh-huh. ñàkk xam-xam moom. ak réer lu danger la. Euh, lu danger danger la bañ na ko ba am na ci ay philosophe yu bëri yoo xamante wax nañ ci. ku mel ne Aristote nee na man lam yanfa'hu 'ilmu lam ya am lam ya man dararul hmm. la dëkkoon hmm. nee na koo xamante ni xam-xam jëriñu ko amul sécurité ci loru réer lor loraa ngay réer moom amu ci sécurité hmm. Galileo tamit moom mi dëkkoon Pise nee na ana lam altaqi ay rajulin jaahilun bi xaytu lam yakun ladayhi shay'un yuallimuni Hmm. man duma dem dajeeg benn góor xamante ne moom dafa réer. am na ku ne ci bu jokkoo ñu jël ko bisimilah yaa ngi ci Waarwi TV salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi nuyu la ziyaare la. tudd ak foo ma sama sëriñ. maa ngi tudd Aliou Gueye di wooyee Mbacke. la ñuy déglu. jërëjëf waay. jërëjëf ba tey Galilou bu baax di nuyu ñi nga nekkal fii yëpp ndax ki jël crédit di la woo yàlla moo fay am na keneen ku ne ci bu mu jokkoo gi salaamaaleykum. maaleykum salaam wa lay nuyu baax di la ziyaare. yokkal kàddu gu tuuti te wax ñu fi ñuy wooye ak noo tudd. da allo. waaw bisimilah tur bi. waaw man maa ngi tudd Xaadim Kan di wootee fii Touba. jërëjëf sëñ Xaadim bisimilah yaa ngi ci Waarwi TV sëñ Xaasim mi lay déglu. di ziare bu baax a baax bu seen boobu macha allah. jërëjëf. di rafetlu émission bi bu baax a baax. Mm-hmm. di wax ni yaa na yàlla suñu borom gën a gën leen a taxaw émission yi di gën a yaatu. amiin amiin amiin. man moom wax dëgg fa yàlla damay teewlu jotaay bi saa yu ne. Mm-hmm. waaye tey nag la yàlla dogal may soog a dugg ci émission bi. jërëjëf sëñ Xaadim di di jaaree mbokku taalibe bokk toog di ko xam ne xam bi lool. amiin amiin barki Cheikhul di leen di ñaanal bu baax a baax yàlla suñu borom yóbbu leen fa bëgg a àgg. amiin yéen it yal na leen yàlla fay. barki Seydina Mohamed. jërëjëf. waaw loolu daal daa ni woon dinaa dugg wax ko daal. Ah, rafet na jërëjëf sëñ dara dara taxul nga dugg nag dugg di leen ziyaare rek ngir Sëriñ Tuubaa bokk. xam naa ko bilaay jërëjëf. di bu baax a baax. di di di koo xamante yaa ngi suivre télé bi rek. ñu koy hmm. ziare. macha allah jërëjëf sëñ Xaadim mu yàgg bi lool bokk ko. ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa yow moomu it soxna maa ngi lay ñaanal nga yàgg ci lool. amiin ñu bokk amiin amiin. waaw waaw loolu la jërëjëf. jërëjëf sëñ Xaadim jërëjëf sëñ Xaadim ndax Amadou Bamba borom jaam ñi kun ko dippee lu baax rek ngay moo tax. waaw mhm. ci Galilo. Mhm. Galilo moom. daa mel ni na ko ne ci buum. maaleykum salaam. waaw ku baax kooku. ñu ngi daal jaare naa la. baa yaa ngi si jàmm. ñu ngi ñaar jàpp baax a baax a baax a baax. bisimilah yaa ngi waaru ci sëñ xaase mi ngi lay déglu. waaw waaw suñu xaase waxtaan yi am na solo. macha allah jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy teew bu baax a baax. macha allah jërëjëf. ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax. amiin taxawaay yàgg. amiin amiin yaa ngi waaw ñu ngi ñu ngi lay ñaanal. macha allah amiin amiin. jërëjëf. jërëjëf sa numéro nag xam naa yittewoo naa ko sa numéro. waaw incha allah waaw. waaw numéro am danañ ko joxe ba émission bi jeex incha allah. waaw waaw léegi sama numéro bul coupé bas dina la ko jox. waaw bul coupé am na koo xam ne mi ngi ci suuf dana la jox sama numéro. waaw baax bu émission bi jeexee nga woote ci numéro bi bu bi jeexee woote ci numéro bi dinaa la ko jox incha allah. baax na baax na. jërëjëf Cheikh Blatt. maa ci ci diggante ah ñu ngi koy ñu ngi koy ittee jamono ji rek la waaye xam na ne yéen ñu ngi ci xol yi Ah, ok a jërëjëf Cheikh Bilate. Mm, di ko jaajëfal moom Cheikh Bilate daf ñu topp nag. Ah, macha allah ah, di suivre lu baax moom moo baax. macha mm. allah euh, Galileo moom man du ma dem di dajeeg koo xamante ne xamul dara. ci mm-hmm. philosophie la bokk. mu ne ndax bu ma demee du ma jëriñ dara ci xam-xam. Mm-hmm. ñu dem ci Socrate Socrate moom mii dëkk Grèce. Mm-hmm. nee na xam-xam mooy aw yiw waaye ak mooy aw ay. Mm-hmm. Albert Einstein moom miy dëkk Allemagne nee na yastamirul ghadabu faqat mahal jahil nee na koo xamante ne daal ak réer jàngoroy réer moo ne ci yow jàppal ne doo deñ di mer rek jàngoroy mer daal moo cay topp tout le temps mm-hmm. euh, confession tamuy philosophie boo xamante mooy philosophie bi njëkk siin mm-hmm. euh, waa siin googu sax dañuy ëppal ci ba koy jàppee ab yeneen. am na ko ne bu mu jokkoo gi xam naa boobu mooy tudd léegi tey. Mm. waxtu bi day bëgg a jeex bisimilah maaleykum salaam soxna si. waaw yaaram maa ngi lay nuyu di la ziyaare soxna si. yal na yàlla nangu ziyaar man la soxna Ndeye Fatou Gueye. soxna Ndeye Fatou bisimilah yaa ngi Waarwi TV. maa ngi rafetlu émission bi. Mhm. di wootee Touba. jërëjëf soxna Ndeye faatu yal na leen yàlla defal jàmm. amin amin mm, bu baax. amin soxna bi amin defal jàmm. amin amin amin ak sëñ Fallou. maa ngi leen jërëjëf Guèye. ñu ngi leen di balu bu baax. ñu ngi lay baal sant wee doy waar rek. yàlla doy ah. non sa buur sekk. <laughs> ah sant wee <laughs> doy waar rek sant wee doy waar rek. ok jërëjëf soxna Ndeye Fatou Guèye. di ko jaajëfal moo tax ma ne la am na ñi ngi xañtu xam-xam xam nga jigéen yu yu xam xeetu xam-xam dafa solo loolu a dañ lay ñaanal nag mm. Mbàkke mm-hmm. euh, confusion moom nga xamante ni moom euh, Chine la dëkkoon mm-hmm. boo xool mooy philosophie bi njëkk Chine moom nee na dëgg-dëgg xam-xam mooy nit ki xam ak réeram mm-hmm. euh, Emma Goldman moom benn ba nga moom it moom nee li waral noonoo am ci société bi lu ci bëree bëree bëri li koy waral mooy ak réer mm-hmm. ba tey Robert euh, Browning nee na xam-xam du mooy ñàkk xam-xam du mm-hmm. mooy set na rek man set naa mm-hmm. ñoo xam ne dañoo jàpp ni boo ñàkkee xam-xam rek yow léegi set nga amul benn problème daal amoo xam-xam ak yooyu <laughs> ah, ñàkk xam na nag moom jëm ñàkk xam mooy danger nag waaye du ak set xam naa ne daal laa ne woon naa ko Euh, muy dénkaane boo xam ne dañ koy bàyyi xel. Hmm. nga xam ne ñàkk xam-xam danger bu rëy rëy la. ñu tàggatoo nag hmm. ni ngay tàggatoo ci jotaay bi. waaw xanaa beneen jotaay incha allah. di sant rek wax dëgg yàlla yéen seenuk yaatal allah ak euh, seenuk objectif itam li ci gën a fes ci li ma gis moom mooy liggéeyal suñu tubaab. am na ko ne ci buumu jokkoo gi daa mel ni salaamaaleykum. salaamaaleykum. continuer sëñ bi waaw ma ne li ci gën a fees mooy liggéey Sëñ Tuubaa te wax dëgg yàlla nii nga koy defee mhm. am na solo lool jërëjëf Mbacke euh, te itam thème bi nga xam ne moom lañ tànnoon mhm. boo gisee ni ñu koy gën a soxlawoo sax mooy dafa dëpp ak jamono ji mhm. ku mel ni Cheikh Amadou Mountakha tamit ci loolu lay dox ndax xam-xam moom mooy borom borom alal ji sax bu amee bu amee alal te amul xam-xam li ñu koy yóbbee mooy yàq alal ji dafa yàq ki nga xamante ne dafa Euh, pouvoir tamit te am euh, te amul xam-xam li mu koy yóbbee mooy mbewte mm-hmm. ki nga xamante ne dafa am diine itam te amul xam-xam li mu koy yóbbee mooy irhab te mooy li ñuy wax terrorisme mm-hmm. ki nga xamante tamit dafa am dafay woote wàllu liberté te amul xam-xam li mu koy yóbbee mooy coow lu bëri mm-hmm. ki nga xamante ne itam dafa ñàkk te amul xam-xam li mu koy yóbbee mooy lottu rek kon xam-xam day mel ni kon kenn mënu kaa ñàkk jëfandikoo faaw rek kon jàmm bi faaw mu wut ko mu di ko encadré ko ci lépp loo xamante ne da ciy dox muy ci yoonu yàlla muy ci yoon muy ci àdduna mm-hmm. ci ay teggin itam li mu koy yóbbul rek mooy ay coona mm-hmm. ak i lor mm-hmm. nee na xam-xam nag am na gone a bu mu jokkoo gi daa mel ni salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam waaw soxna si soxna Fatou balay sëñ ñu ngi ziar bu baax a baax. Mbacke ñu ngi delloo ziare. Mbacke ñu ngi ziar bu mhm. mhm. Mhm. bi da ngay sori tuuti télé bi te yokk tuuti yokk tuuti kàddu gi ñu ngi jéggalu. Mm-hmm. waaw suñu lañ def te lool moom ak man dëgg yàlla waxtaan bi ak mbokk yeeg waa kër Samba yeeg ñëpp ñu mm-hmm. gi rafet na lool. ñu delloo ziar bu baax Mbacke. amiin amiin amiin jërëjëf moom moom jomb ko ndax. ngeen xam ak gëstu xam-xam. dafa nekkee ndaw tool yi ci gëstu xam-xam boobu. jaajëf Mbacke. boobu. jërëjëf Mbacke. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke. ndeysaan Mbàkke ñu nay dongalan liggéey sëñ Tuubaa moo ñu war jërëjëf Mbàkke amiin ci barke sëñ Tuubaa amiin ci barke maam amiin yaa rabbi mhm. jërëjëf Mbàkke mhm. macha allah jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf. jërëjëf amiin. amiin Mbacke. yal na yàlla yokk taxawaay bi ak soxna yi. jërëjëf mhm. jërëjëf Mbacke jërëjëf. Mhm. jërëjëf jërëjëf. Mhm. ndeysaan. di ko sant di ko gërëm soxna Fatou Mbacke moom sëñ Moustapha am sëñ Modou Fatou Xarim moom sëñ Massamba mm. euh, di ko jaajëfal ndax rafetlu noonu dugg bi ndaxte nit moom bu ñuy seede ci moom ay bokkam na wax am na yeneen Mbacke Mbacke sëñ Mbacke maa ngi lay ziare bu baax sëñ Mbacke maa ngi jot message mu mi ngi naan dafa mënut a mu Daaru Salaam maa ngi koy ziare bu baax a baax a mm. baax liñ mm. euh, bee xat aha kon euh, ñu tëjale teggin yooyu rek mm-hmm. sëñ bi tamit ba tey xam-xam wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru ma tazza bihi zuwaanzi nee na comme li gën a rëy ci àdduna ji bi gën a mooy comme loo xamante ne doomu aadama koy moom mooy xam-xam mooy li gën itam ci tedd nga lu muy am nee na itam li annahu munawwirul janaani kama yuqarribu ilal janaani nee xam-xam dalay day leeral xol jëmmi teggin day leeral xol ba pare dalay jegeñal ajana day tax nga jege ajana mm-hmm. mu ne wayu jibul matxa la dal jiiraani kama yubaxilu anil niiraani te day waral itam euh, sa dëkkandooy di la tagg day tax itam sawar a sori la mm-hmm. kon itam bu sàkkoo xam-xam ba noppi itam nañ koy dëpp lekk teggin mm-hmm. tey jëfe xam-xam bi incha allah di lay jaajëfal nga tàggatoo rafet nañ baax a baax soxna Diarra taxawaay bi. Mm-hmm. lii moom sant lu rëy lañ ci am. Mm-hmm. ndax xam-xam yi itam borom xam-xam yi yàgg nañ kaa jox yitte lool. Mm-hmm. waaye ñi leen di dimbali ci jàllale xam-xam bi. ñooñu kenn mënu leen a fay. ku mel ne euh, Malikum ne dinaar dafa dugg ci benn dëkk. jékki-jékki rek di jooy ñu ne ko waaye yow Malik looy jooy mu ne dama fee toog lu mat ñett fan. kenn laaj ma masala te damaa xam ne am na lu ma xam loo xamante ni warees na ma kaa mën a laaj ndax jamono ji jamono la mm-hmm. mooy li borom Minhajul Abidin di wax naan hada zamanu alladi kunna nuxaadiruhu mm-hmm. fii qawli Kaabin wa fii qawli Ibni Mas'ud jamono ji mooy jamono ji nga xamante ne dañu ko doon wattandikuloo mm-hmm. ci waxe Kaab ak waxe Ibni Mas'ud ba tey muy wax ni jamono ji si jëm boppam danger gum danger ci dund fi sans xam-xam mu ne laayib naa zamanan euh, laayib naa biha mar mu ne tawalaa zamanun laayib naa bi fa hada zamanun bi na nalhabu mm-hmm. nee na romb nañ jamono joo xamante ne ñun si jëmboom ñoo daan fo ci jamono jooy mm-hmm. waaye yegg si nañ ci jamono joo xam ne jamono ji mooy fo ñun mm-hmm. kon loolu rek jaam bi bu ko déggee war naa jéem a xool lan mooy fo ci moom lu doon est-ce du ak réeram waaye bu fekkoon ne xam na ndax seytaane ak bànneex a bakkan yooyu dinañ ko fooye moo tax kon war nañ kaa jox itimam bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñu ibbi bunt bi itam kenn mënu leen a fay hmm. wax dëgg yàlla soxna jaara seen télé bi moom hmm. Sëñ Tuubaa rek lañ ciy liggéeyal hmm. allah émission yi ñu fiy jàllale am na solo léeg-léeg man damay dugg di xool site bi waaye tubaarikàlla leen di ñaanal rek mooy suñu borom dafa leen fi ngeen yéene àgg ngeen yegg fa te itam ngeen dem ba seen maas gépp ngeen sut leen aw las amiin Mbacke barke Cheikhou Khadim amiin jërëjëf nga xam ne moom jërëjëf sëñ Xaasim Mbàkke li duuf ci cin li eh, duuf ci nag bi xaju ci cin li mm. waaye lu seeg rek gus góor xaj na sama Baye sama baay bu baax ba phrase boobu yaa ma ko jàngal <laughs> ah, di la jaajëfal fa nga nekkit Baye Kader di la nuyu baax di la jaare sëñ Xaasim ma lay sant bu baax a baax ndax doomu kilifa nga kilifa nga mbaax a tax oyof ban ñeme la ngay nekk nit koo xam ne saa su ne dañuy soñ su yaram su sax Mbàkke yaa ci gën ndax danga may woowoon di ma di ma ñaanal ma la ciy sant bu baax a baax a baax dina ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo ñu boole ci barke Cheikhul Khadim sa maam ju baax ja yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla kattanal la yàlla bu la catkar ci barke Sëriñ Tuubaa yàlla boo yeewoo rek yàlla nga gën a yeewu xam-xam bi gën a yokk kattan gi ak gi ak gudd fan yàlla mi mën a sàmm jaam yàlla na la sàmm ci barke Sëriñ Tuubaa sa maam ah, di jaajëfal seen waa kër yëpp sa maam ci kër ga ah, di ko jaajëfal baax jaajëfal ñëpp nag waa kër gi waaw suñu waajur lañ ci jiital moom mi nga xamante ni moo jiital ci jiital ci ñun alquran. Mm-hmm. ñaanal suñu mbokk yëpp. Mm-hmm. Euh, soxna Fatou mi génn léegi kenn la ci ñun. Mm-hmm. wax yàlla dañoo taxaw taxaw gu rëy. di ziar waa kër gi ku ci mel ni soxna ummi suñu tante yi fa nekk yëpp soxna jaara soxna mam say suñu mam gi ñu ci kër gi itam. nga xamante ne tout le temps dañuy ñaanal rek soxna Bintu Touré. ak soxna Khady Touré. suñu tante yëpp soxna jaare ñëpp daal mënu leen a fay mhm. wax dëgg yàlla yéen ñi nga xamante ne tamit yéen fekk si kenn mënu leen a fay ñu leen di ñaanal bu wér a wér suñu borom dafa leen li gën ci yéen suñu collègue itam ak yow yal na ko yàlla gën a dëgëral. amiin Mbacke amiin Mbacke amiin jërëjëf Mbacke ñaanal waa kër ga yëpp suñu maam ji ci kër gi ñoo ngi koy ñaanal moom yàlla guddal fanam di ñaanal sëñ Moustapha tamit. Mm-hmm. yàlla guddal fanam xam naa dinañ ñëw sax Mbacke ziare si ko incha allah Faat Faat soxna Faat Mbacke mi tamit ñu ngi ko nuyu baax di ko ziare moom it incha allah dana ndax képp koo xam ne rek mm-hmm. ah, sa sa sa mbokk la sa wëlëre la a xam ndax suñu wëlëre joo xam ne ndax danga ñu koo nangul ndax ah, nangul nit kollëreem yombul te yow danga ñoo nangul suñu diggante yow di sant soxna Ndeye Fatou Guèye ak Cheikh Abdou Lat moom mu dugg ak sëñ Xaadi ak mboolem koo xam ne dugg nga rek mm-hmm. ñu ngi lay sant bu baax a baax di la jaajëf di nuyu di ziare sëñ Fallou Mbaye mm-hmm. ak Fatou Mbaye ma nga xam ne moom laa bàyyi ci kër ga sama sama borom kër boobu mm-hmm. ah, di ziare suñu waajuru jigéen di ñaan si borom bi nga xam ne moo mën a may jàmm ku am jàmm nga am ko yal na yàlla may jàmm yal na yàlla sàmm yal na yàlla yir yal na yàlla yóbbu fu fu denc fu yàq yëgul di ñaanal Waarwi TV yéen ji nga xam ne moom la am ci dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi yàlla kattanul ñu ban mën koo eggale ci doole Serigne Touba ma leen joxaar rendez-vous beneen alxames mm-hmm. ci beneen émission jotaay ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf Cheikhul Khadim